kilifa mu ngénte la kooku su taxawee lay kansuloo oo mu taxaw pour meeyo mu taxaw pour député doo ko dee mun a challenge because dafa dee óor ne kii sa papa la fii comme like ndaw yu bëri comme dañ dee feel like ne ah politique pour mag yi la man tey soo ma buggee dugal si politique te maa ngi gis politique ni moo demee taacoo féecoo saaga xasante doo ma mën a convince pour ma dugal si politique ñu nekk si politique bi yëpp mag lañ ñu demee chance yow soo waree dem sax soo waree génn sax sa yaay moo laa wax ne xam nga koy taxawal sali la mu doot la isil mbokka yow ba nga ba nga joxee gannaaw comme euh, ñu seet euh, naka la ñoo mën a saafarale lii nga xam ne mooy ndaw yi euh, jigéen yi ak di physically challenge lu tax comme seen involvement seen participation si politique daf dee daf dee torop liñ gis ci réew mi mooy ñun ndaw ñi ñoo gën a dellu ginnaaw te lu bëri war euh, wala lu ko gën a waral mooy gars yi ñoo ñu delloo ginnaaw mooy ñu yore réew mi ñu doxal réew mi ñoo ñu delloo ginnaaw parce que soo xoolee suñu réew bunt yu néew leen ñu jox pour bunt yoo xamante ni ndaw yi mën nañ ci yëngu suñu aada tamit daf ñu dee sonnal comme ne ndaw du xëccoog mag su mag ñëwee ndaw foog mu bàyyil mag loolu suñ problème la Eh, minen de minen minen lanjutoɓe minen minen tampi e leydi gambia minen min mbaɗaka yimɓe komin gandiranta minen komin ɓiɓɓe leydi ko laamu o toppitaki laarani yimɓeɓe ɓe laarani minen ko laamu o waɗi waɗi ɗum ɗum noon laamu o waɗi fon min keeɓi yimɓe wonɓe suud e dipitetoɓe ɗum walla minen joni minen tori laamu o kala minen nomin keɓ yimɓe wonɓe wonoɓe dipireɓe to mi torimi laamu ngu mi wallu yimɓeɓe constitution o kaatu constitution wannama minen kadi minen kadi min hen the Kiang district as a whole comprises of Kiang East, Kiang West, and Kiang Central, but there is no functional skills training center in any of the aforementioned districts. So if any youth graduates from school or you are a dropout from school and you wish to further education in the areas of um, technical or vocational skills trainings, you have to move out of the district. mansa kunda ma no wato ke karan do ke ngake dole ja ke karan wole ke fa la do bare ɗimɓe tilo men te musol fa hamro kele fa tambita kewol la yaalo mbalo mbaalola jiini mbe luwanomala le mbe ɓanko luwanomala mbe kaŋolomala fo musol yela kaŋo soto musu tan ni nanoɓe yafa ñantatara paal men ay samato sam wara ni samato sam muso fana sa il sanno ay fendo sam disables are on the street begging they should not be there so government let, let, let me tell you that all these political leaders, they are there for their, their pocket. They are not there for an interest of the people. If they are there for that, they will come and consult us. saa musolu fana laftale pour so semboñin soto ni lofta ni lota député yala eh, nyom musol silo e koma ye mentu ya pour fana la député sirango isikara bondi dañu mboko ñom nyom ñi boroma mën na ñew wax ak sa jeker mu ne ko ne waxal ak sa jabar moom mu bàyyee ma place bi te nga gis jigéen boobu noonu moom mu bàyyi lu doon uti boppam mu bàyyi ko mu tàccul boor boobu noonu ba kooku am place bi ni wonta bi musol ntol musol damman damman sim fan président londi ñim bankuga ntol la siyata kewol Uh, let's say 75% of the youths of the Gambia, they use us as an instrument to actualize their political ambitions. There are certain platform nasarda ni ko be diamale ko hanyum din nyongole ke ba dan tale diamu rek o ka tar youth sol fanan kala fika kuma do fo e bu ka fo no because we are not given the opportunity to talk so no opportunity be ka dino yusol la funding ke la de mar bunda jamal ka dino molla ndel fanan sem fam ma ko ene wolda business opportunities job opportunities na o be na da fondin kel fanan CEO se tala baake fu mol salon ko nan lanjuru tolu di fanan bu hada badin wolati mbadi ngollon oto nyam ta nyame oto nyante fanan dawla nyama imbe be woti be accu ballal amen helamu he tan ɗo ko woni ɗo ko jogiiɓe ɓe ɓuri hay lamɗo o hannde nder gambiya ɗo se a ndaari jogiiɓe ɓe ta wona sengo laamu ko ɓen ɓuri laamɓe ɓe ɗum noon onon fof annon ko enen fof ko nene gooto baaba gooto sabu mi miɗen njiya ko minen ngoni ɓe min mbawa yaade ɓe lanjurtoɓe ɓe miɗen jiya ko metti miɗen njiya ko weeli ala ko woni min njiyani hen eyi ko ɗum waɗi joni miɗen fala yiide kala gollirdu laamu ɗo woni Now let's assume the youth or the women or the people living with disability, they have a concern in the village, but they are not part of the committee. Their voice will not be heard. So how do you think that their problems can be solved? Most of the time, if the women, they are always considered to support the men. We have women here, but we find it very difficult for them to contribute. ku nekk am nga yelef si eh, jil ndogal ndogalin bi ñoo mëna jël. ah pour jigéen ñi moom su waxe waxee seen jafé jafe moom bari na bari na torop. makoy tibé ci sama bopp man sóoraale ngeen ma ci programme bi ndax bokana ci handicap yi ni wax ci réew mi te dëgga dëgga lii nekk na loo xamante ni man dinaa ko rafetlu mosuma taxaw si mike yu mel ni sax di wax di wane suma bopp. léegi ñoom ci seen boppa nañ taraay yéen a xam seen jàngaro gannaaw ñoom ñëw nañ fii di leen ndaaj wax leen lu ngeen soxla li ñu mun a ñib bu ñibbee ñoom itam gannaaw dañ leen ebal ñu mun a wax nettali.